إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد ñoo ngi yëkkatiwaat ay kàddu yu ak yooyu cant di ko jëmale ci mbooleem buntu kër yi lislaam yëpp Cheikh Mouhamadul Mountakha ñu ñaan sun borom may ko fan wu gudd ànd ko wér Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke moom Serigne Salihu ak mbooleem njabootug Serigne Salihu gépp Serigne Ahmadou Mbacke maawul hayaat moom Serigne Amdi Moustapha moom sëriñ Modou Ajara moo siwaat nag toog jataayub sant yàlla waaye jataayub nag delloo njukkal sëriñ Touba Xaadimu Rasuul ci lan liggéey bu rëy bii nga xam ne kenn nattablu ne sëriñ Touba Xaadimu Rasuul moom képp moo ko taxoon a dem ci géej gi li mu daj moo ko ko daj muy yëkkati baatub laa ilaaha illallah muy jumaa ju mag joo xam ne defoon na ko ca at yële weesu 2014 ñu inauguré ko woon ca Touba Mbarassane waaye ren jii nag 2023 mu fas yéene inauguré waat yeneen jumaa joo xam ne nag moom la defal Serigne Touba Xaadim Rasul ci dëkkam bu tedd bii ci quartier bi nga xam ne moo di Taybatul Karim Touba Ilipor Maawul xayaat mu def fi jumaa ju mag tudde ko Fathul Mubin bis bi nag ren jàpp nañ ko ajjuma le 10 novembre incha allahu rabbi ji jumaa la joo xam ne wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahadan innama ya'muru masajida man moom kenn la ci jullit ñi kenn la ci ñiy tabaxal lislaam kenn la ci ñiy wooteel yonent bi kenn la ci ñiy sof ci liggéeyub Serigne Touba liggéey bi di jënd jëf ci firnde Serigne tubaa ak wooteem mi ngi woo jullit ñëpp di woo tarixa yëpp di woo ñim bokkal Serigne Touba. buñ doon laaj fii kër suñu boroom fii rek la ñu mën a joxoñ kon nag nongol nañu la ko bu baax a baax di woo waa quartier bi may wax ci seenu tur Boofel Ndilliki Yaañ Daaru Saw Caaween ba bépp gox boo xamante ne bi mooy juróom-ñaari xur wi nga xam ne mooy yi su jiitu woon ca démb ñi gi leen ci woo ak lépp lu ci doon dolleeku fatful mubin bi mooy ñetteelu jumaa boo xamante ni taxawal na ko ku koy topp ci doxalin day gis ni lu jiitu jumaa yi maanaam daara yi nga xamante ni fi ñuy jàngalee ni ñuy jàmmoo yàlla daanaka moom la jiitaloon ci liggéey ci woo ci turu jëwriñ yëpp jëwriñ jëwriñ yi nekk ci biir réew mi ak nekk ci bitim ak fu ñu mën a féete ak ci kuréel gu ñu mën a bokk. ñu ngi ci woo képp ko nga xamante ni mbokkum taalibe nga. Eh, ñu ngi ci woo ñi nekk ci fédération Amérique ñi nekk ci fédération Europe nekk ci fédération Asie ak ñi nekk ci fédération eh, Afrique ak eh, bépp mbokk taalibe boo nga xamante ni ak fépp fu mën a nekkee ñu ngi la ciy woo. ci woo képp ko nga xamante ni soppeeb sëriñ bi nga. képp ko nga xamante ni liggéeyub lislaam ñor na la ñu ngi la ñu ngi la ciy woo. képp koo xamante ne amee nga benn tawat nga ñëw incha allahu taala ñu mottali suñu yéene. ci feexu sëriñ bi ba mën la caa jàppale ci seet la may la ay garab mooy wàllu xale yi di pédiatrie xol bi cardiologie gynécologie bépp feebar boo xamante ne day jàpp soxna yi mooy dépistage cancer du col de l'utérus ñi nga xamante ne jigéen ñu wérul ñu la wàllu échographie wàllu dentaire dinañ commencé ñaari fan lu jiitu ubbite jumaa ji kon àllarba alxemes ak ajjuma incha allahu taala lañ fas yéenee def liggéey boobu ci wàllu bëñ yi ak lépp lu ci aju naka noonu prothèse dentaire yi tamit bépp koo xamante ne am na tuut tànk boo xamante ne jubloogul penku suñ ko indee tamit Mamoul Hayaat santé dana ca def la ca war te topp bi tamit ñoo koy topp ba keroog muy wér te waajuram du ci def benn dërëm kon bépp spécialité boo xamante ne rek nit ki amee na ko ci wàllu gériatrie ba ci urologie nga xamante ne feebar yi jàpp mag ñi u ñëwee tamit incha allah dinañ ko fi amal kon ginnaaw néegub yàlla la nag buñ tabax ba noppi fu jaamub yàlla nekk rek néeg booba am nga ca wàll moo tax sëñ Ahmadou Mbacke di ko woote yaatal woote bi nag waaye ko ànd ak mbokkam yii ginnaaw mu tuddee dongo yi ba noppi nga xamante ni bii am Serigne Touba ci biir di soxna Mbène moom Serigne Souhaïbou ak bokki ko àndal yëpp ñuy woo mbooleem buntu kër yi maam ma xaram yi fukki buntu kër yeeg ñaar ndax bépp jaam bu man di doon kat lépp looy nisar ak a bëgg lu ca feeñe rek day coobaree sunu borom waaye lépp ci coobaram rek ci lay doxee muy bis boo xamante ni ci mbaaxam moom yàlla ci yërmandeem moom yàlla ci la moom yàlla ci jagleelam moom yàlla képp ku ci teew mbaa nga am yéene teew te yàlla dogal nga am ngànt danañ am xel mu dal ak rafet njortu gu dëgër yàlla dana defal ak ubbeeku ubbiku nag lu yaatu la kenn ku ci nekk yaa xam la nga bëgg ak na nga ci bëgg a ubbikoo waaye loolu day sunu njort rafet na ca ci mbaaxam ak yërmandeem ci jagleem loola nag jëmm ji wax du ci dara ndax jàppe ne boppam day mooy ki gën a doy di ci jaam yàlla yi matagutit ab donga waaye nag yàlla day def ni moo wax ne innal fadla bi yadillahi yu'tihi man yasha ci biir coobareem jooju day ku fi dikk te sellal ko te gëm ko sunu borom dana la defal lu kawe sa njort loo xam ne boo ci weesoo da nga ko gis ci mbaaxam ak yërmandeem ak tawfeexam noo ngi ñaan yàlla sunu borom bi nga xamante ne dara tëwu ko mu dolli nu jàmm doole noo dëgëral ci siraatal mustaqima doole dox suñu diggante ak seytaane te musal nu ci mépp ndokk ak pakk ak musiba ak balaa yàlla nu yàlla laabalal sunuy xol ñuy rafet njort ci bindee fi yàlla yëpp te di nangu dogalub suñu borom ci bindee fi yàlla yëpp tey nangu cërub suñu borom ci bindee fi yàlla yëpp yàlla nu ko yàlla dimbalee yàlla buñ gis suñu bopp yàlla buñ gis suñuy jëf maa ngi soññaat sama bopp it di soññaat bokki taalibe yëpp fuñ man di nekk nu góorgóorlu ci yitte ju kawe góor góorgóorlu ci pas-pas bu sell lu ci nangoo góor góor lu ci nangoo liggéey góorgóorlu ci xàq yi war suñu digganteeg suñu borom te dara jiitu te nag wéetal ko moom yàlla liman xayaati sayyara di mudimu bu shari